confirmer information bu triste bi nga xam ne ni suñu frère boobu dugal na ko eh, nga xam ne léegi la am ci guddi gi Thiaroye sur Mer eh, district de santé bi mi nga fees dell ay nit mais eh, ñooñu ñëpp ñu ci ëpp ay demkatu géej lañ yoo xam ne feebar daf leen dal ci biir géej gi muy feebar bu doy waar boo xam ne daf lay génneel ay picc ak sa kanam lu nekk donc muy feebar bu doy waar bu gaaw boo xam ne nii dafa yéem ñëpp ñëpp ñëpp donc euh, li ma ci doon wax rek mooy képp koo xam ne nii am nga mbokk buy dem géej même ñi ko amul sax ñu jël seen ay matuwaay ndax feebar bi xamuñu d'abord lu koy joxe xamuñu naka lay wàllaate donc ku si nekk na nga jël sa ay mesures man info euh, conseil bi ma ciy jox sama bépp mbokk rek mooy d'ailleurs sax. ñu xaw a moytu euh, jën yeek yooyu fi ak ay fan ba ñu am ci lu leer ndax bii que ñii ñëpp géej la leen dale xamuñu produit bu jógee géej la xamuñu jën la xamuñu lan la ndax am nañu ko dal ñoo xam ne ñu mu dal ñu ñu confirmé mais ñooñu demuñu géej dëkkuñu sax caaro yi donc feebar la daal boo xam ne nii dugg na ci askan wi donc ku si nekk na nga jël sa ay matuwaay ndax lii di mu dal nii nii mu dal nii ku leen xool xam ne lu méttee métti la voilà loolu lañ